yaa ngi commencé seen communiqué démb bi maa ngi koy lire naan moment bi nga xamante ni seen i école bi ngi tëj école yu baax classe yu baax amu fi mais waa APR dama naan man wax dëgg yàlla ñoom def da nga ñëw ni euh, man man naa jox leen ma réew mi ma defar yow nga def fi 12 ans fi mu wax dëgg neex yàlla ñoom bu ñu taxawee ñu ne école yu baax amul fi mhm. parce que ñoom accepté dañu ni ñoom dañoo lajj dañoo assumer parce que bu fekkee def nañ fi 12 ak budget bi ñu leen jox lépp lépp ñu commencé waat même pas six mois ñu ni ñuy fi toog fi mu nii école yu baax amu fi <laughs> hôpitaux yu baax amu fi dund gi cher na mais loolu ak ci la faute <laughs> boo tax ma ni vraiment ñoom nag euh, dafa mel ni des fois dafa am lu ñuy fàtte wala comme si que dañu voilà euh, dañu yàpp dañu yàpp les les les sénégalais parce que mm-hmm. lii fi am nii lépp man ci seen seen liggéey la ci seen bilan la bokk laa jàpp parce que euh, ñi fi nekk instant bii nii man bala ma la commencé comptabiliser seen bilan ñu def xëy na au moins benn mandat boo mm-hmm. xamante ni si ni voilà danañu man ni kat ñoom def nañ fi lii ak lii mais pour le moment rawatina ñoo xam ne six mois kese lañ fi defagul bu ñoom li ñu fi def comme bilan ñu bëgg koo gàlle ci seen ndoodu dama naan vraiment y a problème moo tax mbirum reddition des comptes moom mm-hmm. euh, gis nga euh, pour man jërul jërul jàkkam léegi Macky moom am na fit de li mu fi def yëpp ak i nguuram mu ne day ñëwaat pour mën a législative fu mu koy législative <laughs> Macky Macky nag Macky nag dëgg yàlla yaakaaruma ni mu ñëw parce que Macky dèjà xam nga Macky def moom ba mu lajjee ci wàllu politique dafa yàgg moom bi mu demee ba war a jógee ci euh, ci ci ci ci bopp nguur gi bopp réew mi mm-hmm. maanaam ñuy ñuy am problème mu naan ndax am na doxee maanaam koo xam ni war na ko mën a remplacer waaw wala déet kenn ku ne di wax boobu la laj ji woon ci wàllu que Macky bëggul woon euh, ku ko ku ko ku numéro deux maanaam koo xamante ni si nii da ngay sës moom rek mm-hmm. presque ñi ko doon jéem a def ñëpp daf leen écarté woon bi mu demee ba amatul soit nag xëy na ci la jëliwaat Amadou Ba xëcc ko euh, te ñu bari sax ñi naan est-ce boppam la mm-hmm. euh, mu nekk benn interrogation boo xam ne daf ci am léegi nag bu ñu demee tey ba Macky Sall moom mais kañ la fi jógee mars 2 avril 2 avril la 2 avril la prestation de serment voilà léegi moom euh, même pas 6 mois Macky bu fekkee parti APR boobu nga xam ni mi ngi ko créé yaakaar naa en 2007 xam nga 2006 bi bi mu bi mu meree génn PDS. ba suñu jëm yi tey jii bu fekkee ni Macky ak li mu def ci 12 ans mu def ko ci pouvoir bi amul kenn koo xam ni mën na ko diriger li nga xam ne moom moo jël liste c'est parce que Macky euh, wax dëgg yàlla dafa essuyer lu bare bare waa APR ñoom ci boppam. Mm-hmm. nekk instant bi ñoom war nañu ni kon ñoom ci seen ñi bopp. duñ fa dara dara mm-hmm. politiquement. mais kan moo dara mais euh, absolu effectivement. parce que bu fekkoon tey ni ñoom. amoon nañu yenn yenn yenn kii. mais doon nañu woon jël ak président Macky Sall. di ko def di ko def ay leader. ñi fa nekkoon ay lan lañ. malheureusement APR mosul am leader xam nga ban politique la yoroon. Mhm. da ngay ñëw ànd ak man nga indaale sa doole wala man nasaxal la c'était politique. te ñenn yow amul xamante ne ah, bokkoon na biir APR amal boppam avant muy am ndombal tànk mu def ay preuve ñoom maanaam ñoom politique du sommet ñoom ñoo ko développé ci ci réew mi. ok bi ñuy dem jël ay ñoom Omar Sarr ñoom ñëpp leen dugal parce que ñoom amuñu amatuñu woon pexe ay Mamadou Diagne ñu leen di indi ñoom ñëpp fekk amatuñu woon pexe fekk ñoo xamante ce sont des politiques fins xamante ni yàgg nañ nekk seen métier population di leen liggéeyal ñoom ñu ñëw jël leen Serigne Gueye Diop bi muy ànd ak Macky mais boobu boo fekk dafa sës fekk même en même en étant pas maire mais na am ne moom moom la doon def auprès de la population mu dem bokk ci benn bokk yaakaar te pourtant bokk na ci benn boo ko yaakaar presque ba génn ci ñu bari ñoo ñuy soog a xam ne kii benn boo ko yaakaar la bokkoon. Hmm. Hmm. moo tax ma ni dafa lajj ci ci politique am léegi nag Kanta dafay tegaat tànk bi Sénégal loolu ah démissionné na fële Macky Sall li mu fi démissionné na Macky c'est que nag nit ñi dañuy fàtte bu ñu fàtte ni euh, euh, euh, en France Emmanuel Macron dañ ko njëkkoon a araf dànkaafu ko ci moment bi nga xam ne mi ngi nekk fari nekk envoyé spécial ba pare di hmm. jël ay téléphone di woote pour di lijjanti ay affaire politiques fii ci Sénégal lan ni ko nag poste bi nga téye àndul ak di di di di politique moom Macky moom Macky ci boppam léegi nag euh, puisque gars yi def nañ ko tête de liste je ne sais pas ndax dafa bëggaat beneen humilité wala dafa bëgg a daje benn électorat le fait que mu man yaakaaruma ni Macky dina jël tànkam teg ko ci réew bu mel ni Sénégal. Ah, kon lu tax muy démissionné mais Macky bu duggee Sénégal du génn. man dañ ko bañ a jàpp teg ci saa si mais Macky bu duggee Sénégal man wóor na ma ni bu duggee Sénégal gii nii. Macky dañ ko waroon bàyyi nag mu campagne. waaw mën na ñëw campagne bu campagne lan la war a wax sénégalais mais Macky bu Macky yow Macky yow xalaat nga Macky Sall mais bu doon campagne Macky kon àndoon ak Amadou Ba ci élection présidentielle xam na ni jamono mais bu ñu def tête de campagne waaw c'est interdit nag loolu ñu bëri xam ñun mais Macky Sall yoon yoon na Sénégal sax doog ko tere su nekkul candidat il n'a pas le droit de campagne waaw man déedéet nii nii ñu ko defee tête de hmm. mu war a ñëw Macky bu waree bu waree campagne lan la wax sénégalais c'est ça quoi c'est-à-dire moom hmm. sénégalais yi nga xamante ni si ni même pas six mois dañu pare woon <laughs> jàkkaarloog ak Macky Sall jaay ko seen bakkan mais Macky Sall moom la ñu bëgg a wax ni la ñu bëgg a gëmloo sénégalais yi nii am na euh, maanaam euh, audace bu toll ni ñëwaat bëgg a jàkkaarloowaat ak ñi nga xam ni ñoom ñoo di Macky yabuñu de ñi ñoo ñu euh, yab waa coalition ak bu dikkee moom ci boppam lan la war a campagne ak lan lay wax les sénégalais rawatina assemblée nationale quatorzième législature bi nga xam ne moom la ñu génn ak li fi sénégalais yi gis lépp c'est-à-dire waa Benno Bokk Yaakaar euh, nga maa ngi gis Abdou Mbow ke la mi ngi mel ne benn ñebe bu réer ci cin ba moom day xamul fu muy taxaw dafa mel ne boo ko gis da ngay xam ne instant bii ni dafa réer xamul fu muy teg tànk parce que ñoom mais bu ñuy campagne bu yeboo ñoom ñu féete ginnaaw parce que ñoom bu ñu téyee micro jàkkaarloo ak les sénégalais ñoom ci élection législative yi bëgg a sàkkuwaat mandat ci biir assemblée nationale. ñoom ban discours. ak lan la war a lan lu nu war a campagne pour wax ko ñi nga xam ne ñoom ñoo les sénégalais. pour que au moins seen wax am benn crédibilité. ci ay fee yoo xamante ni si nii les sénégalais n'ont pas besoin de chercher le midi à 14h. lépp mi ngi fii nii weng amul lenn loo xamante ni si lu ñuy jeex la. moo tax ma ni bu yeboo waa Benno Bokk Yaakaar ñu continuer di langaamu wax dëgg yàlla jóge ci parti jóge ci pouvoir même pas six mois. ngay wër parti boo dugg ci langaamu la vraiment y'a y'a problème te euh, en tout cas euh, sud bi sax maanaam fi ñu jóge ak fi ñu wàcc dafa dafa sooy sooy yoo xamante ni si ni dafa euh, jéggi dayo moo tax fi mu ne nii plus que. amatuñ fenn fu ñu taxaw il faut que ñu jéem a xool nag naka la ñuy jéem a laxatoo ci ginnaaw yi mais élection législative yi moom gëm naa ni su jàllee. Hmm. mbirum reddition des comptes moom. maanaam yëf yi fi mu ne nii gars yi dañuy lance ba tey demaguñ ah, ci carrément ci lancement bi rek la ñu nekk. Ah, mais buñ ci jógee dina bëre parce que assemblée nationale bi tey moom mooy permettre à ce que président Bassirou Diomaye Diakhar loo xam ne diggoon na ko askan wi mais euh, haute cour de bu ñu amul majorité assemblée nationale lu ñu ko mën a taxawal. Hmm. ñoo te ñoom xam nañu ni ñii bis bu ñu amee majorité assemblée nationale mais ñoom ñëpp kenn dootu ci rëcc. ñoom eh, ñëpp gis nga gis nga dinañu rendre compte. gis nga foofu noonu dalal naa fi euh, koo xamante ne xam-xam dafa màcc ci wàllum yoon ak yoonal mu ne ma entre haute cour de justice bi ñu wax noonu ak pôle financier nee na am na ci ay similitudes yoo xamante ne normalement pôle financier bi. waa dafa am ci wàllum yoon sew sew boo xamante ne da koo bokk ak haute cour. parce que dañ ne haute cour moom cours cours cours la boo xamante ne dañ koy créer pour juste aate ñoo xamante ne dañoo yoroon ay nombre tànk yu kawe ci réew mi alors que loolu noonu bokk na ci prérogative yi nga xamante ni moom la moom la ñuy attribuer ñi nga xam ne ñoo di waa pool financier donc côté boobu itam xëy na euh, expert boobu wax na ma ne constitution bi war na am ay coppite yi nga xamante ne moom mooy mën a permettre euh, li ni mel daal mën a dañ kañ lañ la ñuy dem haute cour ak kañ la pôle financier mën a mën a amee yenn prérogative donc côté boobu itam nekk na loo xamante daal gars yi ñoo ngi wax naan euh, war nañ ko mën a indi daal parce que pôle pôle judiciaire financier bi ñuy wax nii mën na bel et bien àtte ministre boo bu ñu yàpp ne c'est haute cour kese financier bi mën na ko dañu dem liir bu baax a baax a baax ni nga xamante ne ba ñuy ba ñuy samp euh, pôle judiciaire financier bi prérogative yi nga xamante ne moom la daal di amee si ce n'est pas le cas Lat mii ñuy wax nii nii nii pôle judiciaire du ay dossier mais mais mais ministre ministre euh, maanaam moment bi nga xam ne yaa ngi exercer ay fonction là mën nañ wax ni am nga yenn immunité mais le fait que ministre ak président parce que maa ngi dégg yi la fois passée met du Wade moo doon yëkkati kàddu yu ni mel parce que amoon ñu duñ ay duñ ay juge euh, mais mi ngi naan même président sax bu xasee ba nekkatul président war nañ ko mën a topp loolu nag xëy na ay sew sew la yoo xamante ni sii ni ñoom eh, ci seen jëmmi bopp ñoom ñoo ko mën a interpréter mais ak lu ci mantam fi moom amu ci kenn koo xamante ni si ni eh, am nga fi dayo boo xamante ni kenn warul mën a topp ci yoon mais ñun suñu ay loi yi nekk fii moo kii nekk France presque ñoom ñoo yem France ñaata ex président hmm. la ñu fa topp ci yoon ba ñu am problème ak yoon di dem ak ñëw lu tax lu tax tey Sénégal ñu bëgg ni daal Sénégal moom moom mu nekk benn réew boo ah, xamante parce que parce que que comme li ngay wax nii a topp ak li fi xew yëpp comme ñoom ils ont su apporter des réformes maanaam foofu soo nekkee président un an ngay am immunité un an su jeexee maanaam par exemple Bassirou Diomaye le 2 avril Macky Sall le 2 avril 2025 immunité am jeex na France looloo fa am un an lañ la may su nag mooy permettre temps ñu def li nga xamante ni moom mooy reddition des comptes def li nga xamante ni moom mooy euh, ni ñu ko affaire bi nu mu tëdd sax waaye audit yeeg tout ça ba. ñu mhm. am takk ci wér ne yow mi amuñu dara lu ñu la parce que un an yu noonu mooy nga peut-être président nga dem noppalu nga mën a dem wut yeneen business yi nga xamante ne moom ngay def voilà ah, ex président loolu la mais foofu su weesoo un yi nag. jàppal ni mon ami tu es judiciable comme Sénégal loolu la moo fi amul président soo xefee ba nekk ex président article 101 constitution moo ko wax naan mun laa toppee dara lu dul haute trahison te haute trahison amul définition claire hmm. c'est ça le problème en fait qu'est-ce doit être considéré comme une trahison loolu moo tax moo tax Sénégal fii nii ñun vraiment suñu ay lois ay règles moom vraiment nguur gi fi nekk war na bëri ay coppite yu bëri yi nga xamante ne war nañ ko daal di ama pour man sax li ñuy wax ay naan ay ministre wala ministre wala am immunité déedéet lu tax. ministre en en exercice laa la wax de. même ministre en exercice il doit être à la disposition de la justice. ministre même su nekkee da ngay liggéey nii nii nii nii nii tu à la disposition de la justice député itam da ngay parce que man tant que gars yi ñu ngi leen di wax ay immunité maanaam c'était comme si que ñoom dañu mën a def des crimes en toute impunité te dara du leen ci fekk pour man affaire immunité ak affaire yooyu noonu pour man dañ ko war teggi